Heavy Mess.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 am kasoog seen kër dafa mel ni ci ñoom daal jigéen ak yoonu marché ba waa ji ab maçon la waaye bu gëmoon ay ture la mucc waaye nag réew mi léegi dangay liggéey lii di def la ca des ko ci laaj mu ne la damay business business boo xam ne du la mës a wax li muy def maçon bi yoon daf ko teg loxo ci wàllum drogue ñu denc ko ci kaso bi ab diir libéré ko talaata bi weesu waaye ci ëllëg sa àllarba ay booru 11 policier yu commissariat bu yëmbal comico doon def ab opération de sécurisation ci lañ ko tegaatee loxo ci quartier mbeddu Fass eskay policier yi bi ñu ko gisee dañu ko fuyee fekkee ko ak ay cornetu yamba ma ne nag yamba de moo leen gënal ganaar gu ñu njoñ maçon bi mu ngi wuyoo ci turu M am ñaar fukki at ak juróom moom daal gannaaw ba ñu ko defee garde à vue ba yi enquêté ci lan nangu ne dealer la te un kilo et demi yamba yi policier yi génnee suufu ñax yi nekk ca fore bu mbaaw nangu na ne moo ko fa dencoon fi mu ne nag yóbbu nañu ko présenté ko procureur ma ne ko nag boo yemoon ci sa maçon bi mucc moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca district sanitaire bu Kër Massar doy na war ñaari gang ñoo fa doon jàppante raak fa raak bu metti ak ay jaasi ba gaañante deret ju bari tuuru cëy mim réew mbir mi mu ngi tàmbalee ca Malika ñaari gang yi doon fa waraak corante jaasi ba ñaari kan yi ku ci nekk am ci ay blessure naka noonu blessé yi ñu yóbbu leen ca district sanitaire bu Kër Masar ñaari gang yi riir wutali district sanitaire ba indaale seeni jaasi di xaacoo ko yuuxu ne dañuy fayu ma ne coow lu rëy la indi ci buntu district ba ba benn camp bi ñoo mujjee calmé ngir musiba bañ a am waaye beneen camp bi ci des kenn mënu leen a téye seeni jaasi lañuy yor di yuuxoo ko xaacu ne fokk ñu rey ñi gaañ seeni ñooñ fayul leen ma ne mbete ay sawle ba gendarmerie la ñu ma jeewa ñu wàcc ci lieu bi dal di leen disperser man ne ñii de bu ñu leen dencul daañu laalewaat ay plainte nag mujj nañ ko déposé ca commissariat d'arrondissement bu Malika moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona la wax ay waay jigéen ñi bàyyi leen sëriñu tariyaax yi waa ji daal ab sëriñu tariyaax la waaye li doy waar mooy moom daal li muy fajee jigéen ñi ñëw ci moom saafaram ci jigéen ñi am farul rab ak ñoomin seen mooy tëddee leen askay sariyaax bi mu ngi ci turu aka moom daal jigéen ñi ñëw ci moom di faju li mu leen di fajee mooy maanaam saafara si mooy summi leen ba ñu seet leen ma ne nag xanaa lii dafay bëgg neex jigéen ña fay dem li ci gën a doy waar mooy sëriñ bi daf leen di gëmloo ne lenn rek mooy seen garab garab gi daal du lenn lu dul summi leen yegg seen kaw mu mën a saafaraw waay waay waay Sénégal a neex te sëriñ bi nag da doon def ba koy def jigéen ñu am borom kër fi mu ne yoon mujj na koo teg loxo di ko toppee li ñu naan la pudeur ma jigéen ñi bàyyi leen sëriñu tariyaax yi laa wax moo ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Kédougou na doy war ab bébé bu am juróom ñaari weer lañu fas sànni cib naaru lay bébé mu ngi wuyoo ci turu LW moom daal yaayam daf ko bàyyi woon ci néeg bi génn doxi bi bi mu dellu ci la ñëw fekkul bébé bi ci chambre bi te moo ba muy génn fëlër tëraloon liir bi muy nelaw mbir mi nag mu ngi xew le 10 mars bi weesu naka noonu ci la wër wër wër ba sonn bébé bi ne may bala 14 mars bi weesu ci la ñu fekk bébé bi ñu sànni ko ci ab teen mu ñàkk bakkanam ak état bu doy war ma ne yu mel ni yàgg naa am ñu naan ginne yóbbu xale yeeg dañoo sàcc xale yi gannaaw bi mbir mi amee nag kiñ ci njëkk a jàpp mooy wujju yaayu bébé bi ndax kan ñu ñoom ñaar daawuñu jaaroob taal enquête yi nag li mu wane mooy gannaaw ba ñu tegee loxo F di ab jigéen boo xam ne ne ku jege woon waa kër gi la ma ne révélation yi mu def révélation yi doy waar la ci kanamu enquêteurs yi ndax kat F Tunkara ne wujj bi ci boppam ak maam ji ñoo ko yónni mu ñëw fekk xale bi jël ko dal di koy lëmas sànni ko ci teen bi man ne man ne man ne man ne waay waay waay waay waay réew mi ñoo soxor ndax yu mel ni yàgg na fee am de ñu naan jinne jee ko yóbboog xale bi daa réer ak yu mel nii rek lay doon <laughs> waay waay waay réew mi mu doonoon seen xibaaru Buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru Buzz